na weddi yàlla ci mbugal mi metti moo xam ne mi ngi leen di xaar bu yowmal xiyaamate illa alladina mu ne nag yàlla dañ na ci mushrikoone yi yonent bi dañ na ci mushrikoone yi illa alladina lu dul ña nga xam ne aahadtum séqoon ngeen ak ñoom ay kóllëre ki minal mushrikiina te ñu bokk ci jaamikati xërëm yi ñoom ay mushrikoona lañ summa ginnaaw ga nag ba ngeen kóllëranteeg ñoom ba noppi lam yanqusuukum wàññi wuñu leen shay an dara ca kóllëre ga ñooñu nga xam ne kóllërante ga ak ñoom nga xam ne dindiwuñ ci kóllëre ga dara su boobaa na ngeen wéy ak ñoom ci kóllëre yooyee walam yu zaahiroo te sotuñu sot mooy ngay xeex ñu ñëw di jàpp ca noon di ko dimbale te defuñu loola walam yu zaahiroo te sotuñu aleykum ci yéen ahadan kenn képp koo xam ne nii la mel nag fa atimmu na matal ilayhim ci ñoom ahdahum seen kóllëre googe ila muddatihim ba àpp ba ngeen ko defoon amma su app ba agsee nag bu leen ko renouveler naafiq yi mushrikoone yi yéeféer yi ku ngeen ci siqal loolu ba nga xam ne diir ba jeex na bu leen ko beesalaat inna yàlla nag yuhibbul muttaqiin ku bëgg la ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñiy moytu ko defee kon loolu mooy ngeen yem ca ibnu abbas mu ne dafa defoon lenn loo xam ne xaye benn gox ci waa kinaana fekk ñu si ñeenteeg sallallahu alayhi wa juróom-ñeenti weer sallallahu alayhi wa sallam matal ko ba seen kóllëre ga jeex yàlla ne leen fa isan salaxa su weesoo ba jeex al ashhurul xurum weer yi nga xam ne dañ leen ormaal bañ ko ci xeex tere ko su weer yooyu jeexee nekku leen ci aw kori wala boog aw diggi nekku leen ci aw tabaski nekku leen ci aw tamxarit nekku leen ci rajab bu ñeenti weer yi génnee faqtulu na ngeen tàmbalee rey fa na ngeen daal tàmbalee rey almushrikiina jaamikati xërëm yi xaytu wajatumuhum fu ngeen leen mën a fekk fil xilli wal xurum wa fil ashhuril xurum nun la ko ibnu abbas waxe zaadul masir ca jukki ñetteel ba xatum ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett waaw faqtuluhum rey leen leen wala faqtulul mushrikiina rey leen jaamikati xërëm yi xaytu wajadtumuhum fu ngeen leen mën a fekk ak mu ngeen leen fekke ca kaaba ga nañu dee ca xurum ba nañu dee ci weeri xurum yi sax nañu dee fu ngeen leen fekk rek seetetetet tax saar bi amul bismillaahi rahmaani rahim wa xusuuhum jàpp leen leen na ngeen leen jàpp def leen ay prison tëj leen ci kaso di leen jox ceeb yu amul xorom te weex wax suruuhum na ngeen leen tëj na ngeen leen tere walbatiku ci réew yi nañu nekk benn barab rekk waaw wax suruuhum waxudu lahum na ngeen leen toog di leen gàllankoor kulla marsad bépp yoon yoon wu ngeen xam ne fa lañ di jaar kullu tariqin yaslukuunahu nangeen jaar ci yoon yooyu toog fa tere leen ba bu ñu génn bu ñu walbatiku bu ñu tukki bu ñu mën a naan ndox noonu nga xam ne noonu la gaa yi def Salman Rushdi tabarkalla fa in bu ñu tuubee nag bàyyi ak jubadi wa aqaamu salaata ñu tàmbalee taxawal julli nag nangu di julli julli juróom wa aatu zakaata joxe asaka lañ am ci asaka ñu di ko génne fa xallu na daal di sori nag sabilahum seenu yoon bàyyi leen nag bu kenn jotee ak ñoom dara fa xallu sabilahum inna allaha yàlla xafuurun baalekat la waasiul maxfira raxiimun ku bari yërmande la ci ko tuub dellu ci moom wa in su fekkee ne ahadun kenn su fekkee ne kenn minal mushrikiina ci jaamikatu xiram yi dafa ñëw ci yow istajaaraka mu sàkku nga làq ko xeex bi metti benn mushrik ñëw ci yow ne la saawaay te nga ma làq boo ma làqee ba jullit yi réew ma dinaa la jox nangam yàlla nee na ku làqu ci yow fa ajirhu nanga ko làq nanga ko làq in jaaka axadun min al mushrikiina bacda inqidaai l ashhur laa ahda baynaka wa baynahu wastamanaka liyasmaca ma tadcu ilayhi min altawxid wal quraan fa aminhu xata yasmaca kalaam allah wa yatadabarhu wa yattali ala xaqiqati al amr noonu la ko alkashaaf waxe chamaxsheri tabarkal wa in ahadun su fekkee kenn minal mushrikiina ci jaamikati xiram yi stajaaraka daf laal sàkku nga làqu ko nee na fa ajirhu nanga ko làq mu ne sa kër ngay jàng alxuraan xatta yasmaa ba mu dégg kalaamallaahi waxi yàlla ji dégg tawxiid dégg waaraate suma ginnaaw ga ab lix u nga jotal ko ma mënahu kóolute gam sàkku ci yow nga xam ne moom la bëgg nga yóbbu ko mamanahu fa koy may sécurité te mooy këram bul jël alalam bul rey bakkanam bul ko wor bul ko wuruj allahu akbar lislaam diina la ji doy waar mushrikoon yi dégg nga li yàlla jóge ci saar wi mere gim leen mere baraatum min allahi wa rasulihi ila allazina ahadtum min almushrikin nga dégg lim jóge ba mu ñëwee ca aayab ñetteel ba nga dégg mu ni an allaha bariun min almushrikiina wa rasuluhu ila lazina haadtu min almushrikin fii nga dégg mu ne su benn mushrik nag ñëwee fekk juróom-ñeenti weer yi ñu waxoon léegi jeex na nga xam ne léegi fu waaye gis ak mushrik rey fum ko fekk rey kenn nag ci ñoom ñëw làqu ci yow ne la saawaay tee nga ma dimbale làq ma yàlla nee na nanga ko làq te wax jullit ne leen làq naa ab musirik mu ne sa kër nag ngay naafilaa ka jàng alxuraan ba baa muy dégg kalaam allah su kii nag nga jël su jeexee nag nga jël ko nag yóbbu ko ca ma mamanahu fa nga xam ne fii moom wóor na ko ne dootul dee sécurité am na nga daldi ko fay teg zaalika lii nag li ko waral mooy bi annahum ñoom xawmu nit lañ ñoo xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam laa yaalamuuna amuñu xam-xam laa yaalamuuna xaqiqati din islaam fala budda min amaanihim xata yasmau wa yatadabbaru fokk ngeen bàyyi leen ñu dugg ci seen biir moo tax nag waaraate it bëriwaa na ñoo xam ne fi nekk duñu ko dégg moo tax ab jullit moom it day war a fexe ba lim dégg ci ay waaraate dégg ko ci ay waxtaani diine mu fexe ba mbokkum jullitam mu dégg ko su fekkee moom mënu koo waar mu fexe ba waaraate ba mu dégg ne bii moom tane na mu jël waaraate boobee fexe moroom dégg ko moo tax ab jullit su amee ay bànd ay kaset yu def waaraate dañuy wax ne bu ko xasee déglu ba xam la ca nekk na jox keneen mu déglu koo ko jox keneen mu déglu yëf yooyu jàll ku am téere boo xam ne bi day wax lu leer ci wàllu diine mu jàng ko na jox keneen mu jàng waaye jàng denc déglu denc déedéet su boobaa mbir ma du tas ay jooju na ko dégg bu baax yàlla di wéy di leeral at bi nga xam ne moo tax yàlla dañ ci musirikuuna yi mu ne kayfa yakoonu naka lay nekke ahdun benn kóllëre indallaahi fa yàlla wa inda rasulihi ak yonentam ba lil mushrikina dañ koo xàddam naka la yàlla di jële kóllëre yonent bi di jël kóllëre lil mushrikina ci jaamukatu xërëm mu ne loolu warta mën a nekk mu settee ci aw gaay nag illa lazina loolu ñi nga xam ne ahadtum kóllërante nga ak ñoom indal masjidil xaraam fa kaaba ga hum ahlu makka nun la ko ibnu eh, abbas waxe ibnu isxaaq moom ne qabail bani bikr la woon ñoo xam ne kaanu daxalu waxtal xudaybiya fi l mudda allati kaanat bayna rasulillahi wa bayna quraysh fa umira bi itmaami l ahdi liman lam yakun naqada ahdahu minhum tafsirul baxar jukkib juróom xatum fukk ñaar nee illa lazina lu ñi nga xam ne ahadtum kolorante nga ñoom fan nga kolorante ak ñoom indal masjidil haram fa kaaba ga ñooñu moom fastaqimu fa fa mastaqaamu nun jubee lakum ñe leen rek fastaqimu lahum na ngeen ko jub ci ñoom lu seenu njubal toll rek yéen ne ko seenu njubal toll waaw inna allaha yàlla yuhibbul muttaqiin bëgg na ñi nga xam ne dañu am taqwa bu diglee ñu def su teree ñu bàyyi ñooñu yàlla bëggale leen mu ne wa kayfa wa kayfa waxoon na ko léegi naka la yàlla yi séqeek ñi kolore musirikoon yi nan la yàlla séqeek musirikoon yi kolore dafa mel ni mbir mi bu doon jaaxle dañu naan dafa war a jaaxle mu ne wa in te bu ñu jekku woon aleykum ci yéen ñoom musriku ni bu ñu leen jekku woon man leen rey yéen kon ngeen xam kon laa yarqubu duñu fuglu duñu sàmmonteeg fiikum ci yéen illan benn kóllëre wala wala zimmatan wala benn kóolute kóllëre ak kóolute illan mooy ahd zimma mooy amaana ñoom mushrikoon yi bu ñu leen jàkku woon yéen kay yéene jekku di leen baalaka négocier ak ñoom waaye ñoom bu ñu leen jàkku woon duñ ci xaar lenn dañ leen di daldi faagaagal ca saasa seen kemtalaayal kàttan yàlla nee na yurduunakum dañ leen di kontaanloo dañ leen di bégal bi afwaahihim ci seeni làmmiñ bi afwaahihim ci seeni gémmiñ waaye wa tabaa day bañ xulubuhum seeni xol ngoog moom daal ñoom bu ñëwee bu ñu waxee ñoom naafiq naafiq bu waxee wax ji day neex naafiq waxam dafay neex lool waaye xol baa ngay bañ wa aksaruhum li ëpp ci ñoom faasiquuna dañoo génn ak topp ay faasiq lañu ay naafiq mhm. yàlla nee na ishtaraw dañoo jënd ñoom bi aayaatillaahi ci aaya yàlla yi samanan njëg goo xam ne xalila njëg gu néew la fa saddu ñu gàllankoor an sabilihi ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala gàllankoor yoonu yàlla wi subhaanahu wa taala weccax ndiku alxuraan ji poñ poñoorum àdduna mu tuuti mii tere nit ñi dugg ci lislaam xeex bii nga xam ne mooy tabak biñ ciy toll bu yu yonenti masaana woote jëm ca xeex ba rek ñu ne gaañi laa tanfiru fil xar daan ci àgg insha allah yàlla nee na innahum ñoom saa ñaaw na maakaanu la ñu nekkoon yaamaloon doon ko jëf seen jëf yi jëf yu ñaaw la ñoom mushrikoon ne yéeg naafiq yi laa yarxubuuna duñu fuglu duñu sàmmoonteeg fii mu'min ci ku gëm yàlla illan benn kóllëre wala zimmatan wala benn sécurité walla amaana zimma mooy ñi nga xam ne dañu leen di làq may leen kóllëre yàlla nee na duñu ko def ñoom bu ñu leen jekk woon wa ulaayika te ñii nga xam ne duñu sàmmoonteeg kóllëre humul mu'taduun ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo jalgate dañoo jéggi fi yàlla tabaaraka wa taala doon yemlu fa in taaboo bu ñu tuubee nag wa aqaamu salaata ñu taxawal julli wa aatu zakaat ñu joxe asaka fa ixwaanukum su boobaa seeni mbokk lañuy doon fi diin ci diine su boobaa seeni mbokk lañuy doon ci diine mën nañu ñàkk bokk nag seeni mbokk ci geño waaye ci seen mbokk ci diine lay nag wanu fassilu yàlla nee na ñi ngi tàqantal ndànk-ndànk al aayaati aaye alxuraan yi li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam buñ leen ko teqantale wa in nakasoo bu ñu fireetee wa in nakasoo bu ñu xàccatee aymaanahum seeni giñ bu ñu ko se bu ko fireetee su boobaa bu ñu fireetee seen kóllëre min di ahdihim ginnaaw ba ñu ko séqee ba noppi wataanu ñu daal di jam nag sikkal fii diinikum ci seen diine ji fa qaatiloo yéen na ngeen xeex ak aimmatal kufri kilifa yéefar ya bu ñu xeexee seen diine ji bu ñu fireetee seen pacte yi ngeen siñante ginnaaw ba ngeen ko siñantee ba noppi tàmbali sikkal diine nag sikkal saxaaba yi mbaa yonent bi salawaatullahi wasalaamu alayhi mbaa diine ci boppam mbaaw tëralam ñu am lañ cay xeeb mu ne fa qaatiloo xeex leen ak aimmatal kufri na ngeen xam ne ay kilifaa leen ko sant innahum ñoom laa ay maana lahum amuñu amuñu kóolute amuñu kóolute laallahum xay na su ngeen xeexeek ñoom yantahu na ñu bàyyi li ñuy def su ngeen xeexeek aimatal kufri kilifa yi yéefar yi su boobaa kormbolle ya xale ya ñu naw ndawaan yi comme dañ leen defloo rek ñoom daañu bàyyi ala tuqaatiluuna yàlla nee na mu ndax yéen du ngeen xeex xawma nit ñoo xam ne nakasu dellu woon nañu ginnaaw walla nakasu firi woon nañu aymaanahum seen kóllëre yemuñ ca waxam moo ñu jóg yittewoo tëral plan tëral ay programme bi ixraaji rasul ci génne yonent bi sallallahu alayhi wa waxum yéen badaukum ñoo leen njëkk a xeex awala marra ci yoon wu njëkkoo wa yàlla ne waaw na ataxshawnahum ndax dangeen leen a ragal waaw xanaa yéen dangeen a ragal mushrikuun yi xanaa dangeen a ragal naafiq yi fa allahu yàlla axaqu moo gën a yeyoo an taxshawhu ngeen koy ragal in kuntum muminina bu ngeen gëmee bu ngeen gëmee yàlla ragal ko moo gën fuuf ngeen di ragal keneen ku yàlla subhaanahu wa taala dama ne xaatiluuhum bàyyi leen ragal gi te xeex ak ñoom ci xaatiluuhum leen ragal gi te xeex ak ñoom yuazibuhum allahu yàlla mbugal leen bi ay diikum ci seeni loxo yéen jullit yi yàlla li mu bëgg mooy ngeen jël yet bu ngeen xàccee dóor yàlla rocc roo ku ngeen xàcc dóor rek yàlla rocc roo moo tax mu doon wax yonent bi wa maa ramayta is ramayta walakin allaha rama ba mu jëlee loxob suuf ba xëpp ko yàlla subhanahu wa taala wasaare suuf sa dugal ko ci bakkani gaañe ñi soj ñi dee tabarkalla dee gi bari lool yàlla na yonent bi nag sànni woo woon dëgg dëgg sànni man maa sànni fii it loolu lay wax mooy yéen fexe leen bu wut seeni jaasi rek ku ngeen gajj ma rey wa yuxsihim yàlla def leen bëgg a gàcceel wa yansurakum mu di wa mu dimbali leen yéen jullit yi alayhim ci seen noon yi wayas yashfi yàlla mu ne mu saafara suduura qawmin xoli nit ñoo xam ne mu'miniin dañoo gëm yàlla nee na dafa bëgg faj dafa bëgg saafara xol yoo xam ne gëm nañu te mere woon ñii yàlla faj ci seen xol ndax mere bi yéefar léegi léeg ndeysaan nga daan julli yéefar dawal fasam ba ñëw di ko joggi sa kaw sa jàdd gi wala mu fekk la nga taxaw mu taf la sa kanam ak yeneen ak yeneen yàlla wax naa leen muñ leen rek léegi nag yàlla nee na su ma leen bàyyee nag léegi ba ngeen leen tàmbalee rey su boobaa dana am ñoo xam ne seen xol dana sedd wa yushib yàlla yóbbu xaysa xawmin meru xaysa xulóobihim seen meru xol yàlla baal ala yashaawu ci ko ko neex wallaahu yàlla alimun ku xam la xakiim ku xereñ la moom subhaanahu wa taala daa boole xam ak xereñ am xasibtum yàlla mu ne jullit yi waaw yéen ndax da ngeen yaakaar an tutrakoo ñu bàyyi leen rek da ngeen yaakaar na ku ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ñu ne merci daxalal jannati bi xayri xisaab yàlla ne déedéet am xasibtum ndax da yaakaar an tutraku ñu bàyyi leen rek wa lamma yaalami llahu te yàlla xamagut allazina jaahadoo ña nga xam ne jihaad nañ minkum ci yéen baat boobu nag bu diis ci yow buy ne yàlla xamagut maanaam loolu waxin la rek waaye wal muraadu bil ilmi ilmu zuhur laa ilmu xafa fa innahu subhanahu wa taala yaclam zalika xayban fa araada izhaara ma ulima li yujaasi al amal tabarakallah moo tax bu ñu ne wala ma yaalamillaahu yàlla xamagut na nga ko déggee noonu yàlla subhanahu wa taala lépp la xam xamagul alladina jaahadu ñee kër-këri minkum ci yéen wa yatuubu llahu ngeen baal ma wa jaahadu minkum walam yattaxisu te jàppuñu min duunillaahi keneen ku dul yàlla wala rasulihi jàppewuñu yonent bi walal muminina jàppewuñu ñi gëm wali jatan jàppewuñu leen wali jatan ay conseiller technique wa awliyaa min al mushrikin hmm. ndax jàppe koo xam ne bokkul ci jullit yi nga jàppe ko walija maanaam bitaana muy conseil technique di ko wax say secret soo ko jëlee ci keneen ku dul yàlla subhanahu wa du jullit bi ale du jullit yi du sallallahu alayhi wa sallam ah su boobaa nag loolu du baax moo tax mu ne maanaal aaya inna allaha taala laa yatruku nnaasa duuna tamxiisin yazharu fiihi altayib min alxabis yàlla du bàyyi jullit yi mukk lu dul dalee na nattu nattu boo xam ne ca lay feeñ bu baax ñu baax ñeeg ñi safaanoog baax aaj ñi bëgg jàng maa kaana lil mushrikina an yaamuru masajidallah dañu ne dafa am mbooloo moo xam ne mii ci kilifayu yi Quraysh lañ bokkoon ñu jàppoo leen bisu Badar ba al abbas ibnu abdul muttalib ca la bokkoon benn mbooloo ci saxaaba yi jublu ci ñoom daal leen di ayibal ci bokkaale ali ibnu abi taalib mu ngay jàpp al abbas di ko xas naan ko xam nga ne yow ku ne waroon naa xeex ak ba mu des lay yow abdul muttalib mi la jur moo jur abdullah mi jur sallallahu alayhi kon waroo woon a am ñàkk ngor gu dal di xew moom naan ko xam nga ne dog nga ngor dog nga dog nga li ñuy tuddee ak mbokk Abbas ne ko waaye yéen xanaa yéen suñuy ñaaw téef rek ngeen di tudd te ñun am na yu baax yéen suñu négatif rek ngeen tudd am nañu ay côté positif lu tax du ngeen ko tudd Aliou ne ko yéen am ngeen ay maxaasin mu ne ko waaw mu ne ko yéen lu ngeen am abbas ndeysaan ne ko ñun ñooy dundal almasjid al haram ñoo ko yore ñun ñooy sàmm kaaba gi ku fi aj si màkka ñoo lay may loo naan ak loo lekk ku fi jaaxle ku nekk ñoo lay feccal sa jaaxle yàlla daal di wàcc aaya ne maa kaan lil mushrikiina an yaamuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufri aaya jàng noonu zaadul masir ca la wax jooju nekk moom it di wone sababu nusulu aaya jooji tabarkal yàlla na leen maa kaana jaaduwut warta mën a nekk lil mushrikiina ci ñi nga xam ne dañuy jaamu xiram an yaamuru ñu dundal masaajidallaahi jàkke yàlla yi mushrikoon yi jaaduwul ñoom ñuy seere jàkke yàlla yi subhaanahu wa taala shaahidina ala anfusihim ñuy seede ci seen bopp bil kufri ci weddi ulaika mushrikoona yooyu habitat amaalahum seen jëf daa sippiku mënuñoo defal yàlla lu ko saf wa fi naari ci biir sawara hum ñoom xaalidoon way sax lañu fa tabarkalla su ko defee koon mbokk yi nga xam ne yéen doon déglu tafsir bi ngeen teg seen baram ci aaya fukk juróom-ñaar danañ ci dellu siwaat insha allahu subhanahu wa taala ndax ñi ngi toll ci wàllu jàkk ñaatu ci waxukaay gi seen mbokk Alioune Sall ci wàllu xarle bi seen mbokk Cheikh Abdoulaye Thioub rajo bi Ndiaye moo leen di andil seen tafsirul quraanil karim quraan Muhammad ibn Abdillahi salawaatullahi wa salaamu alayhi mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañ ci kàttanu borom bi tabaaraka wa taala ci tafsiru quraanil karim bi nag yéen ci suratu tawba di saar wi nga xam ne mooy juróom-ñeenteelu saar ci alquraanil karim nekk saar boo xam ne mi ngi wàcc ginnaaw almaida ni ñu ko waxe woon ci bind bi weesu jàngoon nañ ko ak yéen ba am ci fukki aaya ak juróom benn taxawoon ci ayab am xasibtum an tutraku wa lamma yaclami allahu allazina jahadu minkum wa lam yattaxisu min duni illahi wala rasulihi bima taamaluun war a ci maa kaana lil mushrikina an yacmuru masajid allah aaya ji ñu tollu taamirul masajid mu di dundal jàkka jàkka mooy barab bi nga xam ne li gën a rëy ci jaamu yàlla ci kaw suuf ci kër googu lañ koy defe wala ci néeg boobu lañ koy defe te it kaw suuf néeg yi bari nañ fi kër yi bari nañ fi waaye jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom kër googi la ne moom la fi moom moo tax ba moom jàkka taamir ko te mooy dundal ko ñaari anam la dundal ko xissiya ak dundal ko maanawiya dundal ko xissiya mooy tabax koog wutal koy bunt karo wutal koy montar wutal koy tapeeg wutal ko ay ventilateur ak yooya yeneen loola mooy dundal ko xissiya dundal ko ci maanawiya mooy moom jàkka julli fa fàttali ko fa yàlla def fa ay conférence ak def fa ay kosereeg def ko muy jàngukaay def ko muy yeetekaay def ko muy attekaay def ko muy école def ko muy université loolu mooy dundal jàkka bil maana li ma njëkk a wax mooy dundal jàkka bil xissa jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu tabaraka wa taala moom dafa takkale diggante dundal ko ak gëm yàlla al imaara imaan kenn mënul def yooyu te amuloo imaan rawatina nag bu mujj bi moo tax salawaatullahi wasalaamu alayhi ca hadis ba isaa raaytum rajula yaataadu almasaajid fashhadu lahu bil imaan li ann allaha tabaraka wa taala yaquul innama yacmuru masaajid allahi man aamana billahi wal yawmi al axir rawahu tirmisi fa li imaaratu alxaqiqiya bi salaati wa dikrillaahi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen gisee waajoo xam ne daa taqoog jàkka miin ko ca dem miin ko ci dikk ñii ñëw jàkka ñépp di fa nekk xam ko ku fa ñëw fekk ko fa kuy dem bàyyi ko fa te du xuloo ci jàkka du xeex ci jàkka du fa werante ci poste du fa xëccoo ci maamoom lii na ngeen seedeel kooku ne gëm na yàlla ndax yàlla moo ne jàkka yi ñu koy dundal ñi gëm yàlla dong ñooma ak gëm àllaaxira moo tax mu ne innama moo tax jàkka dundal ko lu am solo la yàlla tabaaraka wa di ñëw daan ci biir islaam ñoo xam ne dañ leen jële ca xeex ba maa ngi ci sababu nusulu aaya ji te al abbas ibnu abdul mutalib nekkoon ci seen biir am mbooloo ci waa kër yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi dañoo ñëw ci ñoo ñi si tudd seeni ayib sikkal leen ali ibn abi taalib nekkoon ci seen biir doon xas abbas ni ma ko waxewoon ci bind bi weesu naan ko yow yaa mel nii yaa mel na xam nga ne waroon ngaa rus a xeex ak yonent bi waroon nga rus a xeex ak muhammad sallallahu alayhi wa sallam waroon ngaa rus a dagg mbokk gi abbas ne ko nag waaye yéen xanaa yéen suñuy négatif rek ngeen di tudd bàyyi suñuy positif ali ne ko ma yeen am ngeen ay baax-baax yu ñuy tudd mu ne ko am na ñuy baax-baax kay ndax ñun kaaba gi ñoo koy dundal ñii aj màkka ñoo leen di yore te it ku fi ñëw ñoo lay jox nga naan te yooyu yépp ay baax baax la yàlla tabaaraka wa taala doon leen tontu ne leen maa kaana lil mushrikin an yaamuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufri saadul masir jukkib ñetteel xatum ñeenti téeméer ak juróom-ñaar loolu la tabaaraka wa taala di wax kon nag dundal jàkka la yàlla yi wax ñan ñoo koy def bismillahi rahmaani yàlla nee na maakaana jaaduwut lil mushrikiina ci jaamukatu xërëm yi bokkaalekat yi ñiy jaamu yàlla ak leneen ñooñu jaaduwul ci ñoom an yaamuru ñuy dundal masaajidallaahi jàkkay yàlla yi ñooñu mënuñoo dundal jàkkay yàlla yi dundal gii nag mooy dundalu maana mënuñu ko dundaluk xis nag lu mel ni tabax ko ak def ko yooyu léeg-léeg nit jóge fële gëmul yàlla gëmul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëmul alquran xamul xadis te dàq fee tabax gën fee rafet nu muy pentiire jàkka gën fee mën ay karo loolu moom xam ngeen ko ni ma ko xamee ñooñu su fekkee ne dañoo nekk mushrikuun shahidina ala anfusihim di seede ci seen bopp wóor nangu bil kufri ci kéefër ñooñu mënuñoo dundal jàkk ndax jàkk ci nga xam ne daa seede ci boppam kufru tudd ko ci ay waxam jëf ko ci ay jëfam ndax ñoom bu ñu daan wër kaaba ga walla boog bu ñu daan labbayka wu dañu daan wax labbayka laa sharika lak illaa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak naan yàlla labbayka laa sharika lak amoo benn bokkaale lu dul ki bokk ak mbir mi yow nga moom lii mu moom lii maanaam ñi wax xërëm yi ne yàlla yow dangaa moom lii ñu moom lii te ñooñu dañoo nekkoon di samp ay xërëm ca xaarijal kaaba doon ko wër def yaramu neen saa bu ñu wëree ba agsi ca sujjóotal xërëm ya loolu boo demee ci tafsiru saawi alal nii ca jukkib ñaareel ba xatum téeméer ak ñeent fukk ak benn wax jooju ma nga ca di wane ne yàlla tabaaraka wa taala lii mu wax fii mooy li nga xam ne moo ci nekk ulaayika ñi mel melo yii nag di jëf-jëf yii xabitat sippeeku na amaaluhum seeni jëf moo di la nga xam ne moom la ñuy def di may nit ña ñuy naan ak di tabax jàkka yaag di def kaaro yaag yooyu luñ ca def jëf ju sippeeku ndax ak bokkaale day yàq jëf day yàq jëf day sippi jëf wa fi naari hum xaaliduun wala boog wahum ñoom xaaliduuna way sax lañu fi naari ci biir sawara wa yàlla nañ ca musal ñu naa ah, kon de mu ngi noonu leer na waaw yàlla tabaaraka wa taala jàkka moom kon ku koy dundal laaj boobu jar naa laaj yàlla tontu leen ne leen ñii dong ñooy dundal ñii dong ñooy dundal masajidallaahi jàkka yàlla yi jàkka yàlla daal ki koy dundal da koy dundal ci xissiya ak maanawiya kii dundal jàkka yàlla yi nag ci xissiya ak maanawiya te mooy di ko toppatoo ka tabax ka defar ka jekk-jekkal maanawiya bi te mooy di ca di julli ji di fa sikar di fa jàngale ka nangoo jàngale ñooñu mooy ñi muy bëgg lim ndax jàkkat da gis koo xam ne kii day julli ji waaye bu jullee ba nag mu tëdd jàkk ji kenn du waaraati ci jàkkaam loolu ràppal jàkka la ràppal jàkka la dundal jàkka mooy jàkka ab tabax la la koy dundal mooy nit ña fay ñëw ña fay jàngale loolaay dundal jàkk waaye allahu akbar asalaamaaleykum ràpp tëj allahu akbar asalaamaaleykum ràpp tëj léeg leen nga ñëw taxaw aw waxtu ne damaa bëgg a julli ñu ne jàkka ji kenn ubbiwu ko wala kenn ubbeeku ko wala jàkka ji kat deesu fi julli tàkkusaan wala jàkka ji kat deesu fi julli tisbaar ndax dañoo wax ne fu ñuy jullee tàkkusaan ci jàkka di fa nodd nangam nangam yooya du dundal jàkka yooyu day ràppal jàkka yàlla nee na ñii dong ñooy dundal jàkk ñan man amana billaahi ku gëm yàlla ku gëm yàlla moo mën a dundal jàkk mu wóor ko ne jàkka ji lim ciy def du ca bëgg ak pay du ca bëgg merci du ca bëgg jërëjëf du bëgg ku ko ca gis du bañ ku ko ca xas du bañ ku ko ca yedd lu tax ndax allahu subhanahu wa mi tax muy def ci jàkk ji kooku moom boo ca defee gis na soo defut gis na loo ca tollu xam na moo tax ba di dundal jàkka ji ci wàll googu ci ñaari anam yooyu soo ñëwee ci jàkk ji bu doon yow dong it tabaaraka wa moom gis na la boo ñëwoo ñu fekk keesu jàkk ja nga dugal ca ab million wala ñaari million tabaaraka wa gis na la yàlla moom loo def ci jàkk ji rek moom gis na la soo fekkee jàkka ju ràpp nga defar yàlla gis na la sooy romb jàkka yàlla gis na la soo duggee ci biir di julli yàlla gis na la ak lu mbooloo ma xumb xumb xumb tabaaraka wa taala xàmmee nañ ñuy ñëw jàkka ak ñu dul ñëw jàkka di dundal jàkka nag dana tax ba boo faatoo bu ñu la fa indee jàkka ji dana la recevoir waaye su fekkee doo dem jàkk mukk nag ba faatu ñu indi la fa ah ña la fa indi teg la fa day tooñ nañ jàkka ji te jàkka ji dana la dana la jooy ba baa nga fay jóge doo ñëw jàkk doo fa dem kenn xamul la fa ba faatu ñu yóbbu la ca morgob jàkka ba it ah, yaa ngay lakk courant bi jàkka ja jàkka jay mer yaa ngay jël euh, climatiseur am ba jàkkay mer mu wóor ne ba ngay man daawoo ñëw ñàkk mën a tax gaa indi si su boobaa jàkka ja day yooxu loolu mag ñi bind nañ ko ci seen téere yi tabaarkàlla kon kuy dundal jàkk mooy ku gëm yàlla subhanahu wa taala mu wóor ko ne li muy def ci jàkk ñu fay kook ñu fayut ko moo ci bokk yëpp su boobaa nag bu gëmee yàlla saa buy def loo xam ne wóor na ko ne lii am na ku ko dàq rek mu nangu koo bàyyee loolee moom mu def ko te moom ma ko ko dàq moom mi nga xam ne kii ko dàq li mu topp ci ginnaawam waaye yàlla taxul nag subhanahu wa taala da nga gis ku xëccoo ci jàkka barab boo xam ne bi moom mënu koo taxawee wóor na ko ne lii am na ku ko dàq ci jàkk ji moom mu ne lii lay taxawee yàlla nee na ñii dong ñooy dundal jàkk yi ñu ne ko ñan mu ne man amana billaahi ku gëm yàlla benn ñaareel ba wal yamil axir gëm àllaaxira ku gëm àllaaxiraay dundal jàkka ndax ñii dem ca jàkk ya ak ñëw tuyaaba jan cee amee mu wóor leen ni àllaaxira daan ca jot su boobaa bu ñu ñëwee ci jàkk ji ku leen sant ku leen gërëm ak ku leen xas ak ku leen xarab la ñuy yemale képp dañuy def la ñuy def rek ñuy wax xasaka waaw diw de moom nangam moom di ni muy jëw ñàkk ji nangam moom seetlu ngeen koom gis ngeen la mu wax démb yooyu yépp moom yoonam bañ caa nekk rek xam ne tabaaraka wa taala mi tax muy ñëw jàkk tabaaraka wa taala muy def ci jàkk moom xam na loolu te alyawmul aaxir bis mujj ba bu ñëwee yàlla di fay ña doon dundal jàkk ya bil issiya wal maanawiya dana ko fay fay goo xam ne gii gu doy sëkk la ndax néegu yàlla bi ña cay ñëw yàlla rek lañ cay ñëwal wa salaata day taxawal julli ku kuy dundal jàkka mooy kuy julli ku dul julli ku nekk boo dundalee jàkka benn bee nga am muy xissiya waaye maanawiya doo ko am te xissiya du cinquante pour cent maanawiya di cinquante pour cent su boobaa day baax déedéet xissiya bi daanaka moom ay diis pour cent lay nekk maanawiya bi mooy li ci des dundal jàkka ci julli ku dul julli ku nekk la ngay def ca jàkka du tekki ak dundal jàkka kon kuy dundal jàkka mooy ki cay jullee ji assalaat almaktuba bi xuduudiha mooy waxtu wu jot wu nekk bu ñu noddee mu ñëw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaara ngi nii ñoo xam ne bu yowmal xiyaamati yàlla tabaaraka wa taala def leen di keral ba àtt nit ñi ba noppi jële leen ca ker googee dugal leen aljanna bokkoon na ca mu ne koo xam ne kii qalbuhu muallaqun bil masajid kook ab xelam dafa dafa wékku ci jàkka yi saa su nekk xelam di ca nekk muy dem di julli ji ak di fa jóge wa aata zakaata te joxe asaka muy ñeenteelu melaw wi ñii dundal jàkka mooy ñii nangoo joxe ci jàkka ñii dundal jàkka mooy ñii nangoo joxe ci jàkka bu ñëwee ci jàkka ji gis ne jàkka soxla na xaalis ñu war xaalis ci seen poche xaalis boobee bëgg tuyaa ba dana leen jaral ñu yëkkati ko def ko ci jàkka ji waaye jàkka ñëw ci jàkk ji yor fukki junni ci sa poos ñuy fayu courant jàkk ji mu doon ab junni dong nga yëkkati junni booba aw ñaar fukk joxe ko tabaaraka taala moom gis na li des ci sa poos bi soo ko jaral su la tabaaraka taala jaraloon fa nga toog ngay fay junni boobee te kenn du fa nekk naan lu waaye man ci jàkk jeeg dimbali leen jàkk jeeg dëkk bi tabarkal la tàmbali sa jàkk mënoo ko xaaja àggal nga gàddu say rajo dimbali leen jàkka ji lu waaye mën ci jàkka ji yuuxu yi fii takk ay rajo lool nag yàlla subhanahu wa taala waxul kenn yàlla waa yalwaanal leen ma defal ma ci jàkka yi na ngeen mën a tabaxe tabaxale noonu walaw xush walaw walaw xusha tayrin donte tàggu picc la it na sa jàkka mel melal ko noonee waaye bëgg sa jàkka mel ni jàkkay gaa yi te yoruloo weccet ngay wax rek tabarkàlla bët bu set boo xëyee lal sa mbalaan di yuuxu ca kaw def leen ci jàkk jeey loola bu jàkk ja amoon ñuy dundal jàkk ji lool du ci am te koñ bu nekk seeni kër na mel jàkka yàlla ji tabaaraka taala jane ca koñ ba war naa mën a mel noonu kon ku gëm yàlla di julli gëm alaaxira di joxe asaka ñeent jikko yii yàlla ne ñu ko mel ñoom dong ñooy dundal jàkk walam yaxsha te ragalut illallah ku dul yàlla kuy dundal jàkka it yàlla nee na du ragal kenn ku yàlla walam yaxsha illa allah ragalul kenn ku dul yàlla xaafa walam yarhab ahadan siwa moo di jàkka it soo ragalee kenn ku dul yàlla pànk yi na ci jàkka yi dañ lay tere jàkka yi yàlla subhanahu wa taala nee na walam yaxsha illa allah ndax jàkka ju joo dem ju nekk daf cay am ay léeg-léeg ay groupe yoo xam ne ñoom ñooy wax ne ñooy saytu jàkka ji waaye geneen wàll ga it tabarkàlla ñooy ñoom ñoo xam ne saytu wuñu saytuwaale wuñu waaye dañu fay nekk di gàllankoor mbir yu mel noonee ku dul jàkk nag bu ragal ñoo da dangay ñëw te yàlla subhanahu wa taala indi la ngay def ca jàkk ja di ci dugal say xalaat di ci dugal say doole yàlla nee na juróomi melo yi ñi ko mel dong dong ñoo mën a dundal jàkk bu ko defee kon jàkkaangu noonu dundal ko nekkul ci kaw wutal ko ay këyit yu bari wutal ko ay commission yu bari wutal ko ay na yu bari jàkka ilimaan moo koy yor ak ña ànd ak ilimaan ca yor ga lu fa ñëw tege ci loxo yi ilimaan luñ jox ilimaan mu def ca jàkk ja lum jaar la ci poosam tabaaraka wa taala mi moom jàkka ji mi ngi koy gis di ko wax ne ah fal yaabudu rabba hazal bayt moo di jàkka lañu cay def loole ilimaan moo ko moom seytaane nag léeg-léeg nga nekk ci ay kaam diir bu yàgg nga jóge ci kaam yi nag léegi ñëw ci jàkk ji léeg-léeg seytaane day ànd ak yow ngeen ñëw jàkk bu ko defee lu ñu fa yëkkati lu nekk seytaane na la dugg ci léeg-léeg danga nga ci dugg ci kaw ak ñàkk xam te lu waay dugg te dugg ca ci ñàkk xam loole la nga cay yàq mooy ëpp la nga cay defar seytaane moo koy bëggee noonu yàlla nañ yàlla musal ci seytaane fa asa xëy na ulaayika ñi mel juróomi melo yi tey dundal jàkka an yakunu ñu bokk minal muhtadiin ci ñi nga xam ne jub nañu yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu ibnu abbas nee na yàlla moom bu ne asa rek fi l quran waajiba loolu lu war la mu ne moo tax mu ne yonent bi asa an yabxasaka rabbuka maqaaman mahmuuda yàlla tabaaraka wa taala dana la dekkal ci barab boo xam ne bii bu ñu sant la mu ne inna rabbaka sa yabasaka maqaama mahmuda waya shafaa ba demee ci alqurtubi noonu la ko waxe mu ni ibnu abbas moo ko wax radiallahu anhu yàlla ne na ajaaltum ndax dangeen a bëgg a yemale siqaayatal xaaji jox ñiy aji ñuy naan wa imaaratal masjidi ak dundal jàkka ji alxaraam jàkka ji ñu ormal ji ndax dangeen bëgg yemale nit ñëw màkka nga jox ko ndox mu naan ak bale jàkk ji kaman amane billaa mu yem ak ku gëm yàlla yàlla nee na ndax da bëgg yemale ñaar yooyu ab laaj la ndax ñaar yooyu yem na kii nga xam ne amana billaahi gëm na yàlla wal yawmil aaxir gëm alaaxir wa jaahada mu fii sa sabilillah ci yoon yàlla yàlla nee na ndax ñaar ñi daañu yëpp hmm? ne ci kaaba gi di dundal di jox ñi aj naan rekk yem ak ku gëm yàlla te jiyaat ci yoonam loola tontu la boo xam ne ña ngi ko doon todd alxab al abbas ba mu ne yéen dangeen dul tudd suñuy baax baax ndax bu ngeen ñu jiitoo ci lislaam ak gàddaay it ñun ñooy dundal kaaba gi ñooy def nii ñooy def naa mu daldi wàcc ci moom aaya jooju nga xam ne ci lañ toll atabari nee na haasa tawbiqun min allahi taala li qawmin iftaxaru bilsiqaaya wa sadaanati albayt alxaram fa aclamahum an alfaxra fi limaani billah walyowm alaxir waljihaadi fi sabili atabari jukkib fukkeel xatub juróom-ñeent fukk ak ñeent nee na lii ab yedd la mbaaw xaste bu jóge ci yàlla tabaaraka wa taala mu ne waaw nit ñii di tiitaroo jox ñi aj si ñu naan nit ñii di tiitaroo di bale kaaba gi nañu xam ne tiitar mi ngi nekk ci gëm yàlla tiitar mi ngi nekk ci gëm àllaaxira tiitar mi ngi nekk ci kër këri ngir yoonu yàlla subhaanahu wa taala wi taxaw loolu mooy jihaad kër këri di kër këri pour diina taxaw loolay jihaad kenn ku nekk nag am na loo ci man ci kër këri ngir diine taxaw amul ku yàlla sàkk te amuloo ci loo ci man man raa minkum munkaran fal yuqayiruhu bi yadihi fa in lam bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi moo di ku yàlla sàkk ku nekk benn nga man am sa tuut di def ci yoonu yàlla wala nga am sa temps di ko def ci yoonu yàlla wala nga am say xalaat di ko def ci yoonu yàlla ku yàlla sàkk na nga ñàkk ñeent yépp ñett yépp amut fokk nga am ci benn yàlla nee na mi ngi laaj kon ndax dañoo bëgg a yemale jox ko aj si ndox mu naan bale jàkk ji ñu yemale ko ku gëm yàlla gëm àllaaxira di kër kër ci yoonu yàlla bi ndax mu taxaw yàlla daal di tontu ne laa yastawuun duñu yem indallaahi fa yàlla bu ñu yemee fii yéen fa yàlla moom duñ fa yem laa yastawuun inda allah duñ yem fa yàlla laa yatasaawa almushrikuuna bilmuminin wala acmaalu ulaayika bi acmaali haula wa manazilihim duñ yem mukk mushrikuuna yi seen jëf du yem ak muminuuna yépp wallaahu yàlla nag laa yahdi du jubal alqawma alzaalimin nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañu ko defee kon noonu yi la mel bu ko defee tooñkat yooyu dañoo tooñ seen bopp ci ñàkk a gëm bu ko defee tooñ nañu it al masjidul xaram moom yi maanaam ba tey boo bu la neex nga ne tooñ nañu jàkk ndax bu dee masjidul xaram dañ koo def muy jaamukaay boo xam ne ay xirim lañ fay jaamoo bu ko defee bu ñu fa dee jaamoo xirim yàlla tabaaraka wa taala moom daa di leen fay ni ñukk daa di saxalal jullit yi njub ci aaya ji weesu daa di koy dàq ci ñi nga xam ne ñooy mushrikoone yi mu ne wallahu laa yahdi al qawma alzaalimiin noonu la ko albaharul muhiit yàlla daa di wax ne allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañu mi ngi leeral gën a leeral bokk allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañu wa ñu gàddaay jóge fañ nekkoon te mënuñ faa dund seen diine dem ci beneen dëkk boo xam ne mën nañ faa dund seen diine wa jaahadu ñu kër-këri seen kemt lay kàttan fi sabilillaahi ci yoonu yàlla ñu def ko nag bi amwaalihim ci seeni alal wa anfusihim ak seeni bakkan ñii dey azamu darajatan ñoo gën a màgg ay daraja inda allahi fa yàlla subhaanahu wa taala ñii day ñoo gën a màgg ay daraja indallaahi fa yàlla ñi nga xam ne seetal nañ seen bakkan ci taq-taqi bokkaale daa di gëm yàlla seetal seenu yaram ci gàddaay seenum réew dem ci meneen réew ngir mën faa dund diina fab seen bakkan ak seen alal jox ko yoon yàlla tabaaraka taala ñii melaw melaw yi ñoom ñoo gën a rëy ay daraja fa yàlla subhaanahu wa taala gën a yëkkatiku ñi nga xam ne liggéeyewuñu lu dul nga aj si màkka njox la nga naan ndox doonte baax na liggéeyewuñu lu dul tabax jàkk jeeg lal basang yi doonte baax na ah, ñooñu duñ yem mukk ci yàlla subhaanahu wa taala wa ulaayika ñooñu hum ñoom dong nag alfaaizuun ñooy ñi nga xam ne ñoo texe alfaaizuun ñoom ñi nga xam ne ñooy raw te it ñooy ñi nga xam ne ñoo am li muy tuddee victoire euh, man seytaane ñooñu yubashiruhum dana leen bégal rabbuhum seen borom bi rahmatin ci yërmande joo xam ne minhu ma nga jóge fa yàlla subhanahu wa ñëw ci ñoom wa ridwaanin ak ngërëm wa jannaatin ak ay aljanna lahum am nañu nag fii fiihaa ca aljanna yooye naimun xéewal goo xam ne muqiim xéewal guy sax la dàkk jannaat aaliya xutuufuhaa daaniya ñu am ko ci biir aljana jooje dafay nekk muqiim sax dàkk xéewal gu sax dàkk aljanna rekk la am àdduna kenn mënu fee am xéewal gu sax dàkk loo fi am bu la waay waxe ne sa nàngam ji yàlla na sax dalay jay ñaanalu la ku lay ñaanal danaan nangam yàlla na yàgg ci yow wala yàlla na nga fi yàgg waaye yàlla na nga fi sax moom ci àdduna boo ko ñaanalee benn nit ñaanaloo ko ak loolu xale yi di ñaanal léeg-léeg mag ñi nga defal leen ci rek soow ba noppi ñu ne la pàppa yàlla na nga dund ba dund sàppi la nga daagu dem aljanna loolu itam xam nga ne la daagu dem aljanna moom mënoon ne la nga dee dem aljanna waaye dañu lay bañ a tuddal dee gi fiihaa ca aljanna ja ba kañ abadan ba faw abadan ba faw inna allaha yàlla nag indahu nekk na fa moom ajrun pay goo xam ne azim pay gu rëy kuy def ngir yàlla yàlla nga pay goo xam ne gi pay gu rëy moo di tabaaraka wa taala li nga xam ne moom la wax foofu moo di pay gi nga xam ne moom lay faye way jëf yi moo di ak fayam goo xam ne gii ku mu ko jox ku nekk sa xol dina sedd ترنيمة دار بشارة وإيساء ba mu leen melalee ñetti melo yooyu nag mu jàkkaar loole nag yeneen ñetti melo bégale leen ko muy arrahma yërmande mu jàkkaarloog imaan aridwaan ngërëm mu jàkkaarloog hijra aljihaad muy kër-këri mu jàkkaarloog aljinaan aljan mu tàmbalee ci yërmande ndax moom moo gën a yaatu dëkkale koog imaan ñaareele ko ngërëmu yàlla mi nga xam ne mooy jeexantal dayo boo xam ne ci la doomu aadama siin muy sonn looloo ko tax a mu ñetteele ko aljana mi nga xam ne moo jàkkaarloog hijra muy gàddaay te mooy bàyyi sam réew wala bàyyi lu bon dem ci lu baax loolu tafsirul baxar indi na ko al aloosi ci tafsiru ruuxul maani nee na wala yaxfa anna wasfa aljannaati bi anna lahum fiha naimun muqim jaa fi qaayati lataafa li anna alhijrata fiha safar alladi huwa qitaatun min alazab ruuxul maani jukki fukk xatum juróom-ñaar fukk mu ne amul dara lu umpe ci melal gi tabaaraka wa taala melal aljana ne xéewal gu sax dàqa nga fa nee na melal gu lewet la gu neex ndax gàddaay dafa def ab tukki te tukki aw dagget la ci mbugal tabaaraka wa kon mi ngi melal sikki mushrikuuna yi bi mu ko melalee mu teg ci jikkoy rafeti way gàddaay yi te mooy way gëm yi nga xam ne gàddaay nañu bàyyi seeni kër bàyyi seeni réew xubban fillaahi wa rasuulihi ngir bëgg yàlla ak ab yonentam tabaaraka sallallahu alayhi wa sallam mu tàmbali nag di moytuloo lëngoo ak yéefar yi mu tudd fii nag ne dog diggante ay wayjur ay mbokk dafay war bu fekkee wayjur wa dafa weddi yàlla mu teg ca nag ndimbal loo xam ne mi ngi koy dig way gëm yi daal dellu siwaat nag ci waxtaane li nga xam ne mooy sikkus ñim doon waxtaane almushrikoona wa ahlul kitaab nga xam ne dañuy dox ngir fay leeru yàlla tabaaraka taala fu ñu mën a toll yàlla ne na yaa ayuha allazina amanu yéen ñi gëm laa tattaxisu bu leen jàppe aabaakum seeni baay wa ixwaanakum ak seeni mbokk awliyaa ay xarit inistahabu bu ñu tànnee alkufra weddi yàlla alal imaani ci gëm alqalbi nee na ci sababu nusul bi nga xamee ne digal nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu war a gàddaay jógee Makka ñëw ma Madina te gàddaay nekk lu jafe ndax réew moo juddoo xam fa magge fa sa kër yi bokk nekk fa say bokk nekk fa nga nekk fa ba am fa juróom fukki at ak ñett ñu xëytal na la ñëwal nga jóge ci réew mi dem feneen amoo fay bokk xamoo fa amoo fa kër amoo fa néeg amuloo fa lenn li nga am fii nga nar koo bàyyi fii dem fële loolu yombul de te nag gàddaay li muy rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam nee na dina gàddaay jóge réew dem ba réew makk ba madina te kat hijratuhu ila ma haajara ilay mooy ba ñuy wax ci innamal amalu binniyaat ak ni gàddaay ree moo tax ba ñu koy def dangay gis waa joo xam ne day génne këram day génne këram wax baayam mbaa mbokkam mbaa jabaram daal koy tàggu ne ko ñun de dañ ñëw digal ñu gàddaay nga gis ku tàggu ak njabootam mbir ma daal koy yéem lool njabootam daal di waaj ànd ak moom ñu dem nga gis ku tàggu njabootam jabaram walla doomam nga dégg jabar ja ne ko najaay koo ñuy bàyyeel da ñuy bàyyi nii rekk ñu nar a sànku ci topp ku sànku kii rekk ndeysaan nga gis góor goo xam ne léeg-léeg jabar ji waxe ko nii ci kàddu gu lewet ndeysaan mu fomm gàddaay ga toog bëri na ci tabarkal la yàlla tabaaraka taala ne leen déedéet du noonu ay ay ji bokk na ci sababu nusoolam loolu boo demee ci asbaabu nusool ci xatum téeméer ak ñeent fukk wax jooju ma nga ca yàlla ne kon yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm ba bëgg a jóg gàddaay ànd ak sallallahu alayhi wa sallam laa tattaxisu bu leen jàppe abaakum seeni baay wa ixwaanakum ak seeni mbokk mbokk mu góor ak mu jigéen ak mi la mag ak moom bu leen leen jàppe awliyaa ay xarit in istaxabu suñu tànnee alkufra weddi yàlla alal imaani ci gëm bu leen leen jàppee xarit ku weddeeti yàlla rek nekkatul seen xarit léegi seenub noon la wa man yatawallahum ku xaritoog ñoom nag minkum te bokk ci yéen jullit yi fa ulaayika gaa ya def loola humu zaalimoona ñoom ñooy tooñkat yi alxuraan dégg nga fii du wax aw tur naan ñat diw ak diw mi def nangam te fekk aw gaay def nañ ko wala mu naan fa ulaayika di wax gaa yooyu déedéet day wax waman man nag istifham la walla man nag ismu mawsuul la ismu mawsuul ci man góor mën na fee dugg jigéen mën na fee dugg mën naa tekki daal lu nekk fii lu am xel nag lay waxal waman képp koo xam ne su boobaa ba yamal xiyam ku def lii rek yow danga remplir fiis bi sa tur nga fi bind fa ulaayika it noonu lay mel humu zalimoon xul mu ne yonent bi waxal ma gaay